pas à chaque fois eu beaucoup de chance ci élection présidentielle yi nga xam ne jàll na fi euh, vous n'avez pas un, un, un appareil euh, électoral comme peut-être à l'image de Benno wala de Yewwi derrière vous euh, comment est-ce que vous comptez euh, donc euh, mobiliser tous les Sénégalais les citoyens les électeurs autour de vous wala avec vous pour mën a dem ci élection présidentielle am nga moom dafa am deux deux deux deux groupes hein mm -hmm. il y a ce qu'on appelle les groupes qu'on appelle les coalitions mais le grand groupe qui Euh, d'ici et de la diaspora ma ma leen di nuyu ñoom ñëpp euh, et je pense que bu ñu xoolee un peu ce qui s'est passé avec euh, le parrainage prouve à suffisance que les appareils sont importants les occupations mais xam ne boo xam boo boo ko nekkee ci réew mi am ko benn assise benn présence. Mm-hmm. parce que n'oublions pas hein, que euh, social. waaw def ma ko woon pour lii. ñu dab mm-hmm. donc loolu dafa ne du ma ne moo ëpp doole parti politique. mais néewul doole. Mhm. donc sur ce plan on n'a pas de problème. Uh mhm. -huh. et on est très confiant. vous dites que vous n'avez pas un appareil euh, politique mais am nga un appareil social. Euh, lan ko différencier un peu ak les militants yi nga xam ne homme politique moom la am. donc nous nous avons des membres et des sympathisants. ok mais surtout nous avons le peuple ba nga xamee ne ñoom bokk na ci lu tax ñu dem élection. en réalité c'est devenu une demande ndax euh, <clears throat> ñooñu dañu gis suñu présence au niveau national moi mes cellules sont présentes partout dans ce pays dans mm les communes de Sénégal contrairement à ce que ñenn xamul yi mais ñi may dëgg xamee nañ ne au à l'échelle de, de neen nekk nañ fa mhm. donc xam nga ñooñu bu ñu demee ba leneen ñoom parce que euh, def social je pense que pouvoir muy politique pour man euh, li gën am solo ci àdduna mooy dimbali sa morom ak yërmande mhm. donc nit ki boo ko yërëmee yërëmee ci mbir dàppale ko ci mbiram surtout bu la duggalee ci dara moom mooy jël jëf yi def ko en jël ko en mm-hmm. donc ce qui fait ñii dañoo gis sa njëriñ parce que ñoom da leen di dimbali te yàlla rek tax ñu gis seen bopp ñoom ñoo dem ba ci man ñëw ne ma li ngi ñuy dimbali metti na jëloo ko fenn ndax euh, man mosuma benn fonction nominative mm-hmm. donc ñu xamee ne li ma am di leen ko jox depuis deux mille dix huit ça fait sept ans jëluma ko fenn furul sama ñaq mm-hmm. sur tous les à tous les ñu ne ma donc loolu boo yoroon alalu réew waxuma la ñun mais Sénégal dañ dañ ci génn. Mhm. donc ñoo ñoo ne léegi ñun ñooy nekk sa ginnaaw ñooy nekk say membre ñooy nekk ñi nga xam ne ñoo lay taxawa ba li nga soxla ci réew mi ñu jox la ko ce qui est un peu différent des des partis parce que parti militantisme la. donc adhésion par des principes la.